tàllal leen loxoy gën ji mindeef jaara way gën ji mindeef jaara jiñ jiñ leen bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillah nacmuduhu wa nastacinuhu wa nastagfiruhu wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu ala man qaala bu'ithtu li utammima makarima al axlaq wa qaala aydan la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wasalam sallam mbokk yi waa téléspectateur u waa auditeur u fkr 92 point com dikkaat nañ fi ak yenn seen émission bu rëy boobu di ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi woon ci sunnay njàpp macha allah tabaarakallah ñoo ngi ci page 10 ci sunu njàngaleeb Abdourahman Laxdari ci nafar bi ñuy nafar sunu wàllu diine Abdourahman Laxdariw nee fa in tazakkaruhu bil in taala faaluhu mu ne wa man nasiya fardan min aadaihi fa in tazakkarahu bil qurbi faaluhu wa ma baaduhu wa man nasiya mu ne ku fàtte fardan cëru farata jamono bi ngay jàpp nga fàtte raxas sa xar kanam bokk na ci cëru farata yi wala sa loxo ba sa concu bokk na ci cëru farata yi wala sa tànk bokkoon na ci cëru farata yi wala massa sa bopp dem ba kot bokk na ci cëru farata yi nee na boo ko fàttee faynta zakkarahu jamono bi nga ko fàttee bil xuur bi kilo jege faaluhu wa ma baadahu léegi da ngay dellu siwaat ci cëru farata boobu nga masaa sa cëru farata boobu wala nga raxas sa cëru farata boobu ak la ca gannaawam bismillah lan la bëgg wax léegi yaa ngi doon jàpp tey nga ñëw ba sa bakken nga yem sa bakken nga tëb sa xar kanam nga raxas sa loxo ba ci sa conc jamono ba ngay masaa sa bopp nga fàttaliku ne man kat raxasuma woon sama xar kanam léegi charia nee na da ngay dellu siwaat boo dellu siwaatee nga bàyyi sa bopp boobu nga toll nga ñëw nga raxas sa xar kanam boo raxasee sa xar kanam la mu nekk ci ginnaawam mooy ay loxo danga koy raxasaat raxasaat sa bopp raxas sa nopp raxas sa tànk macha allah bu fekkente ne bi nga ko fàttalikoo dafa jege fa faaluhu wa ma baado léegi nag macha allah su fekkente ne da nga ko wa intaala faaluhu waxdahu wa aada ma salla qablahu léegi nag su fekkente ne da ngay jàpp nga fàtte sa xar kanam wala nga fàtte massa sa bopp cëru farata lañu nga fàtte ko nga julli ba pare jamono bu nga jullee nga toog dix quinze vingt une heure de temps nga ne mankat kat ndekkee massaaw sama bopp Ceerno Abdourahmane Lax Dërëb nee na dangay ñëw nga raxas sa cër boobu nga fàtte woon boo ko raxasee te nga at parce que ba nga fàttee cëru farata njàpp ga yàqu na julli ga yàqu na wa intaala faaluhu waxdahu wa aada te nga baamu maa salla julli boo julli woon xablahu lu ko jiitu wa in taraka sunnatan ku fàtte sunna jàpp moo xam da nga sa nopp moo xam da nga fàtte raxas sa gémmiñ moo xam da nga fàtte sarax cëru sunna yooyu nga xamante ni boo ko fàttee wala yuiidu salaata nee na nee na doo baamu julli ga nga julli boo fàttee cëru sunna cëru sunna cëru nga fàtte ko ngay jàpp fàtte sa nopp ngay jàpp fàtte sa bakkan ngay jàpp fàtte sa gémmiñ nga dem a dem dem dem dem dem ba jàpp bi jeex nga julli nee na julli googu doo ko baamu ndax cëru sunna nga fàtte bismillah wa man nasiya lumxatan xasalaha waxdaha bi niyati wa insalla qabla zalika aada nee na wa man nasiya ku fàtte lumxatan mooy une partie minime soit-elle lumxatan lumxa mooy benn partie bu ndaw lumxa léegi yaa ngi jàpp jamono ba ngay jàpp sa cëru farata yi moo xam sa kanam moo xam sa loxo nga fàtte ci benn nga fàtte ci benn partie bu ndaw bu ndaw bu tollook ron wu dërëm ron wu dërëm nga fàtte ko lu toll noonu mu ne xasalaha waxdaha nee na danga ko raxas bi niyatin mu ànd ak yéene wa in salla qabla zalika aada nee na su fekkente ne cëru farata boobu fàtte nga ko nga dem julli ji nee na julli boobu nga julli julli nga baaxul danga koy baamuwaat dangay ñëw nga jël ndox nga masaa parti boobu nga fàtte woon nga julliwaat bismillah wa man tazakkara ku fàttaliku al madmadata mooy raxas sa gémmiñ saraxandiku wal istinshaaku ak saraxandiku baada an sharaha fil wajhi gannaaw ba nga fasee tàmbali sa xar kanam fala yarjiu ilayhima nee na bul dellusi ci ñoom ñaar xatta yutimma wuduahu lu dul da nga pare sa njàpp bismillah lan la bëgg wax bu fekkente ne bu fekkente ne danga fàttaliku ne raxasoo sa gémmiñ fàttaliku ne sarax fàttaliku ne raxasoo sa nopp cëru sunna yooyu nee na nga dem a dem dem dem dem ba jamono bi ngay raxas sa xar kanam nga fàttaliku ne mankat raxasuma sama gémmiñ wala raxasuma sama bakken nee bul dellu siwaat continuer sa njàpp ndax cooru sunna la jarul ngay dellu siwaat continuer ba jàpp ba jeex bu jàpp ba jeexee ngay soog a nag raxas sa gémmiñ wala nga raxas sa bakkan tabaarakallah kon su fekkee dégg nga ma cëru sunna boo ko fàttalikoo ci biir njàpp doo dellu si bàyyil ba bàyyil ba jàpp bi jeex nga raxas de raxas cëru sunna boobu bu fekkee cëru farata nga fàttaliku ko ci biir jàpp da ngay siwaat nga raxas cóoru farata ba su fekkente noonu julli nga ba pare da ngay baamu julli gi ci cóoru farata ba bismillah mu ne wa fadaa iluhu ngëneelu njàpp ngëneelu njàpp at tasmiyatu da wax bismillahi bismillahi wa siwaaku nga socc lii nag xadis la lii nag xadis la sallallahu alayhi wa sallam nee ngay jàpp na nga ne bismillahi sallallahu alayhi wa nee na lu àndul ak bismillah ak turu yàlla turu yàlla baaxul looy def yow jullit bi nga def nga jullit te tuddloo turu yàlla baaxul bismillah foog looy def nga tàmbali bismillahi wa siwaaku ak lan ak soccu xolo bokk na ca ngëneelu njàpp ja sallallahu alayhi wa sallam nee na alayhi wa sallam an ashuqa ala naasi aw ala ummati la amartuhum bissiwaaki maa kulli salaati allahu akbar aw maa kulli wudu yonent bi salaa sallam su ma ragalul woon teengal teengal teengal kon dinaa digle bala ngay julli nga socc julli yépp bala nga koy def nga socc wala bala ngay jàpp nga socc am na benn riwaay bu dikk lawlaa an ashuqqa ala ummati la amartum bis siwaaki maa kulli wu maa allahu akbar sallallahu alayhi wasallam nee na su ma ragalul woon teengal kon bala ngay jàpp dinaa la wax demal nga socc bala ngay julli dinaa la wax demal nga socc waaye dafa baax mu yonent bi buggul teengal buggul dangal kenn léeg-léeg doo gis socc nga war a jàpp chéré mooy na la nga jàpp waaw ah, waaye nga socc moo gën bala ngay jàpp nga socc moo gën bala ngay julli wa zaidu darbatil ula ak dolli ba ngay dolli ci bu njëkk ba jàpp am na ñaar-ñaar na ñett-ñett waaye benn bu njëkk bi mooy farata wa zaidu ala darbatil ula ak dolli ba ngay dolli bu njëkk ba tabaarakallah fil wajhi ci sa xar kanam wal yadayni ak sa ñaari loxo al bidaayati bi muqaddami raasi nga neelu njàpp ak booy raxas sa bopp nga tàmbali tàmbali ca tàmbalikaayu bopp ba mooy karaw ga wa tartiibu sunani ak toftale sunna ya toftale sunna ya wa qillatul maay ak di néewal ndax xoola yàlla ngi tere yàq yàlla mu ngi tere yàq moo tax sunna mu ngay tere yàq yàlla buggul yàq yàlla ne wala tusrifoo bu leen yàq mukk inna allah laa yuhibbul musrifin yàlla nee na bëgguma ko yàq yàlla nee na bëgguma ko yàq même booy jàpp ci booru dex wala booru walla booru géej bul yàq ndox mi yàlla bëggul ko yàq wa qillatil wa qillatul maa'i alal wudu ak néewal ak néewal ndox te cër ya wa taqdimu yumna ak tàmbali ndeyjoor ala yusra donc ci nga dellu njàpp jëm ci càmmoñ tabaarakallah kon nag waxtu yu dab nañu ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi baalu ñëpp àq ñoo ngi baal ñëpp àq seen xarit seen soppe xaadim seen moo doon defal seen émission ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ñoo ngi ci lax dëre bi ñoo ngi ci njàngale mi tabaarakallah yàlla na yàlla faj aaju ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam seen émission bu mag boobu ma sopp rasulillahi bu mag boobu fkr 92 com assalaamu aleykum wa rahmatullahi